baadiru gaawantu leen bi la amal si jëf ju baax ak màggat naaxisan guy aji nëxal aw mawtan wala ak faatu xaalisan gu aji fëkke aw maradon wala tawat xaabisan gu aji téye aw taswifan wala ak négligé mu aji san guy xadis bi di xadis fukkeel bi sëriñ bi indi na ko it ñeen fukki hadith yam dajale won te tudde won ko nafa isu durar fi kalimati khairil bashar hadith bu am solo la abu umama moo ci jële ci ku bax ki sallallahu Alaihi Wasallamuneh, nengin ne na ngeen gawantu ci jëf ju bax bala kenn ci di len dal ndax bu len dalé day jëf ju bax da jafé lol ba ñëk moy ak magat go xamné day xawa yak sa xel sax màggan mom lu ci ëpp doomu aadama bu ko defé lu bari du ko mënati jaamu yàlla yu baree baree bari da koy tële du ko mënati mu ne da ngeen gaawantu kon ci jëf ju baax jamono yi ngeen nekk ci ak wér bala màggat googu di ñew mune it na ngeen gaawantu ci jëf ju baax bala faatoo ñew faatu ta ñak faaw mu ñew te man la lool te bo xasse faatu mom say jëf dak jeex na do mëna jëfati kon nag jamono yi nga xam yéen a ngi dund rek ci ngeen di bàyyi xel bu baax a baax faatu di jéem jëf lu baax balaa faatu ñoo ngir njëkkanteeg faatu ba ca topp mooy tawat doomu aadama moom ak wér mënta sax faaw rek dana ñëw te sax kañ la koy dal te bu tawatee xam nga ne lu baree baree bari ci jaamu yàlla jëf ju baax dalay jafe doo ko mënati kon jamono yi nga xam yéen a ngi ci ak ci ngeen gaawantu ci di jëm di jëf lu baax balaa tawat a ñëw loolu tax bu la yàlla tegee tawat mënatoo jëf ju baax dañ lay gàntal nga xam ne tiyaaba lañ lay bindal maanaam loola loola def ci ak wér soo demee ba tawat tee la koo def dañ la koy bindal tiyaaba ba mujj nag mooy ak ñiig goo xam ne day ba yàgg def ci yow ak naagu akuk deng-deng ci jëf ju baax maanaam ñiig mooy loo a def rek ci lu baax di ko xaare ëllëg naa bàyyi ba nangam naa bàyyi ba ngam doo ko def doo ko def mu teew loolu mom day dem ba yag seytaane faté loolu loola lu bax la def ci ak deng deng nga xamné ne sa dund gep man nga man nga man nga man nga ca baña def lu bax la kon hadith bi hadith bu am solo la ndax yonante bi mu lim yep mënut ta ñak faaw mu ñew te benn bu ci ne bu dalee doomu adam bi rek jëf du bax ja du ko mënate la ca bax nak moy kon mu njëkkante moom balaa loolaa ñew jéem a def lu baax bu ko loolu dalee nag ñu mën koo gàntal mën koo bindal tiyaaba ba tey ndax li ñu ko waxee loo daa def ba nga amee wér loo mënoon a def rek di ko def boo demee ba mënatoo ko dañ la ko bindal tiyaaba waaye nag li xaw a doy waar mooy daa mel ni moom seytaane day gañe foofu doomu aadama lool ndax bu dee ak màggat moom day def ci xelam rek ne ko màggatagoo ko nekk bu nekkee ci ak ndaw du xalaat màggat mukk te la muy def ci xelam mooy jaamu yàlla moom bala maa nekk bala bala naa bàyyi ba nekk mag rek door koo def soo defee nag bu demee ba nekk mag cër yi day bàyyi mu tàyyel lool dara du ko mën a ci jam jëf ju baax ba jaamu yàlla yàlla dimbaliwut ba tey it adduna moom li fekk mi fi adduna buy dund it bu xalaat jóge fi faatu yi moom day jàpp ne moom du fi gaaw a jóge mukk loolu lay def seen xelam su ko defee loolu lay wax rek ni naa bay rek ba ba ba ba ba ba nek mak dora dora tuub dora dora nang fek na mo xamul sax kañ lay faatu baa sax lolou bu koy nigee bu dee ma nek mak day fek ab xolam tak lol tilim lol ñak leer ba jëf ju baax du ko jëf ta jëf mom jëf ju baax xol mo koy def xol bu leer wa dama bu nekkee ci ak wérit tawat du ko du ko bayyi xel day japp na du ko dal mukk jamal bu ne rek suñu borom mën na koo teg tawat ta bu ko tege tawat jëf ju baax du ko du ko mënati su fekkee nag moom ba mu nekkee ci ak wér jëfatul lu baax lu baaxoon di daal doy waar wax tax yàlla bëgg kon boo nekkee ci ak wér balaa tawata ñëw rek fekk nag nga nekkoon ci jëf ju baax. nam ko mujjule nag mooy négligé négligé moom lu doy waar la ndax ñu sax waxoon na ne moom di ko def di négligé ay jaamu yàlla daa bokk ci màndargam texee di. ndax niñ ko waxee léegi day mujj rek seytaane fàtte loola jëf ja doo ko def mukk daanaka